dal leen ak jàmm ki seen xibaaru mbatiit euh, musaa bu jant bi Moussa rek des waaw euh, def nañ fi ay production am benn vraiment bu marqué pas jant bi mais pour le hip hop sénégalais bul moo jooyloo baat boobu ngeen di déglu moo di bopp Moussa bu jant bi baat bile dootuñu ko dégg abadan ndax Moussa bu jant bi dëddoon na fi on a eu prix on a beaucoup fait on a beaucoup voyagé mais boobu benn période la woon boo xam ne c'était vraiment la mouvement ci boppam qui était en branle quoi moo doon naaw. moom mi nekkoon rappeur bu ràññeeku bu fës jamono yi ndorteelu mouvement hip hop ci réew Sénégal bokkoon ci groupe bu ñu naan jant bi moom ak Doudou ak Souley doonoon ñoo xam ne seeni way ak seeni rap nekkoon na loo xam ne lu fës la jamono jooju bokk na ci yooyu les clips bul ma jooyloo bi nga xam ne ci lañ ko gën a xamee. mete si guddi gi nee seenaw lu fay xew xale bi ne yow yow yaa may tewe bajanu bu jant bi bokk ci nga xam ne ñoo fi taxawal mouvement hip hop bu dëgër fii ci réew senegal mu gëntal gi sax mu doon na nekk producteur ngir jàppale ak gunge lenn ci artistes yi nga xam ne dañu dugg ci rap bi ci bees kenn sax ci yooyu la rappeur di Ale Mbaye alias taale bi nekk groupe XDX mu ngi indi ay seedeem donte sax jotul dund ba xam bu baax ki nga xam ne mooy Moussa Deyman Dieng di musa bu jant bi. Moussa bu jant bi physiquement xamante wuñu mais morsom xam nañ ko ay production bi mu jot a def xam nañ ko ñi mu jot a collaborer aussi xam nañ xam nañ leen si quoi. Moussa bu jant bi ñun aussi dañuy jàpp ni que pionnier la pionnier ci hip hop galsen euh, tout comme euh, ñi nga xamante ni mooy jëm si yàlla si pakot yi parce que ñoom ñaar jot nañu liggéey lu bëri déjà ñi ngi profité si occasion bi di jaale li nga xamante ni moom mooy hip hop galsen bi yëpp yëpp cat ba cat donc di leen ma soowaat coon encore une fois de plus di ñaan rek yàlla xare ko àjjana aussi ci occasion bi maa ngi profité itam di jaale waale Bogos Taj parce que Bogos Taj il de Saint-Louis mais il a beaucoup avec les gens de Dakar donc moom ak Cool Coxiste jot nañu liggéey ak Moussa euh, donc man it maa ngi koy jaale waale ko. rajo Sud FM ci sama baat mi ngi delloo njukkal kii di Moussa Diant bi te di ko jaale ay mbokkam ay xamem ak ay xameem ak mbooleem hip hop sénégalais. 我的罗兰贝，让你个人都打给别不能。 groupe boobule sax di XDX bu Saint-Louis dañ ko tabb ngir mu bokk ci li nga xam ne moo di hip gal Galsen Awards di compétition bu mag boo xam ne dañ ciy xool ban group moo ci gën a fës jëm ci wàllu hip hop fii ci réew Sénégal ren nag groupe bu Saint-Louis bile bokk na ci te li mu mébét moo di daal di jël ndam li ki ko xam ne sax moo di Baye taale di fësal ne waa Ndarit bokk nañ ci biir mouvement bi. Euh, man la bit Taalé membre groupe XDX euh, bu Saint-Louis du Sénégal ak euh, Soufianke voilà donc. dañu génne woon album bi ci dernier vague bi mars dernier 21 mars album bi moom moo tuddu Namel wéetal na ma Namel wéetal na nag euh, honneur la pour ñun ñu boole ko ci li nga xamante ni moom mooy Galsen Hip Hop Awards catégorie meilleur album groupe euh, donc nañ wax que ni c'est la première fois Saint-Louis di am représentant ci yu mel noonu quoi compétition bi commencé na gars yi ñu ngi ci vote yi euh, donc vote yi mi ngi dem ba le 10 novembre incha allah Euh, donc ñun suñu yitte yëpp loolu la parce que déjà hip hop Saint-Louis donc mun nañu wax que ni beneen opportunité la am pour wanewaat xar kanamam. Eh, ñu nominé benn groupe bi nga xamante ni Saint-Louis la bokk ci compétition bu mel nii donc jaaru na ñu def kem kàttan pour mën a jël trophée bi juste pour ñu mën a gëstuwaat eh, hip hop Saint-Louis pour xam que ni eh, am na ay daanaan yu nekk yi nga xamante ni duñu sax XDX donc am na yeneen groupe yi nga dañu war a feeñ te jàpp nañ ni jaaru na quoi donc loolu moom mooy li nga xamante ni moom mooy sabab bi gën a alimenté le pourquoi ñu war a jël premier prix bi. ñi war nañu mën a jàppale XTX que fépp fu ñu nekk ci ci Sénégal fépp fu ñu nekk ci àdduna donc yomb na su ñu demee ci Facebook euh, bu ñu demee XDX pansement wala ñu dem seen Hip Hop Awards si seen page aussi donc dinañu gis lien de vote bi bu ñu duggee ci lien de vote bi bu tijjee ko juste ci kaw rek daa gis fu ñu bind meilleur album groupe ci sa droite donc foofu boo fa wàccee daa après nga bës ci xdx bi appuyer ci vote après jeex na. nañu déglu sax benn extrait wu album bile di SOS Saint-Louis ñu si waxtaanee lépp lu jëm ci wàllu érosion côtière maanaam ni géej gi di nangoo suuf si. tëdd ba xaaja guddi dégg riiru géej ndox mi ni muy rokkee fokk miiru kër gi. géej amul bànqaas lum romb faxas xànk romb tefes def de gaa dun baaba jeeni mes su àdda di jooy phénomène naturel ouragan tremblement de terre ñun changement climatique moo ñuy gaañ fii la ñu ndar seen xibaaru mbatit jërë ngeen jëf ci déglu bi Bonjour et bienvenue dans votre journal de la culture. Euh, Moussa bu jant bi Moussa rek des waaw euh, def nañ fi ay production en benn vraiment bu marqué pas pour jant bi mais pour le hip-hop sénégalais bul ma jooyloo. Cette voix s'est aujourd'hui éteinte à jamais. C'est celle de Moussa de une voix qui a connu son apogée et son heure de gloire durant les débuts du mouvement hip-hop sénégalais. Le rappeur Moussa de Djantibi, de son nom Moussa Deyman Dieng, était membre du groupe Djantibi. Il est décédé hier des suites d'une maladie. On a eu des prix, on a beaucoup fait, on a beaucoup voyagé. mais boobu benn période la woon boo xam ne c'était vraiment le mouvement ci boppam qui était en branle quoi moo doon naaw. Le groupe d'Antibi qui a fait les beaux jours du mouvement hip-hop sénégalais naissant avec le titre mythique de Boulma Dioylo. lu fay xew. xale bi ne yow yow yaa may teewee. L'un des pionniers, l'un des piliers du mouvement hip-hop sénégalais s'en est allé. Triste nouvelle, pour, donc pour le monde culturel qui est en deuil. Au chapitre des témoignages, voici Alembay alias Baitale du groupe XDX de Saint-Louis, un rappeur de la nouvelle génération qui a tenu à témoigner sur ce pionnier, dit-il. Moussa de Djantibi, c'est un grand, c'est un pionnier du hip-hop galsen. Euh, il a beaucoup fait pour le hip-hop galsen en tant qu'acteur dans Djantibi mais aussi en tant que Moussa Djantibi personnellement, parce qu'il a beaucoup travaillé sur la production de beaucoup de gens. Il a travaillé avec euh, Pakoti, qui est, qui est décédé lui aussi. Euh, euh, un gars que je respecte bien, que je connais, qui est Bogo Style. il a travaillé avec euh, euh, Moussa Boudjantibi et Kourkoxis sur des projets. Euh, donc, ça fait l'occasion pour nous de présenter nos condoléances à tout le mouvement du hip-hop Kalsen. Rappelons qu'il s'était aussi reconverti en producteur pour épauler plusieurs jeunes du mouvement hip-hop naissant. La radio Sud FM par ma voix lui rend hommage et présente ses sincères condoléances à sa famille éplorée. Justement, le groupe XDX de Saint-Louis, qui a été nominé dans la catégorie Meilleur album des Hip Hop Galsen Awards, se fixe comme objectif de remporter la première place. C'est Big Tale du groupe XDX de Saint-Louis du Sénégal et je partage le groupe avec euh, Soufianke. C'est avec plaisir, c'est avec plaisir de travailler et que votre travail est, est rémunéré. Euh, sous n'importe quelle forme. Le fait que notre album Namel Wetel Nama est sélectionné dans euh, le Galsen Hip Awards, euh, donc c'est avec euh, plaisir que nous l'avons su. Et donc euh, c'est le moment pour moi euh, que tout le monde sache qu'on on fait partie de Galsen Hip Awards catégorie meilleur est-ce que les compétitions ont commencé et les votes et quel est justement donc votre euh, objectif Ouais, donc les compétitions ont déjà démarré, donc le vote est, est démarré. Donc euh, la clôture des votes c'est le 10 novembre. Et notre objectif... Euh, c'est d'abord euh, de remporter la première prix. Si d'abord on remporte le prix, eh, ça va être une opportunité euh, de plus pour nous, mais aussi pour le hip-hop saint parce que depuis que Galsen Hip Hop Awards a, démarré donc ça fait cinq ans parce que Galsen Hip Hop Awards c'était en 2015 qu'on l'a lancé donc 2015 cinq ans que Saint-Louis n'a jamais eu de représentant au Galsen Hip Hop Awards donc pour nous c'est une première mais aussi c'est une première qui doit ouvrir les portes et qui doit faire euh, euh, connaître à, au du Sénégal qu'à il y a d'autres groupes ou bien d'autres artistes rappeurs qui font du bien et qui sont bien plus que XDX et que les gens aient l'occasion de les découvrir. Donc, je pense que c'est ça qui est le plus important pour nous, pour qu'on doit remporter le prix. La date de la finale, euh, ce sera le décembre. Ouais, ouais, qui veulent nous soutenir doivent voter et ils peuvent trouver le lien de vote euh, sur Facebook, sur notre page XDX Pansement. Donc, une fois là-bas, ils verront le lien. Donc, s'ils entrent euh, sur le lien, ça va diriger vers le, là où ils doivent voir euh, la catégorie meilleur album groupe. Voici un extrait de SOS Saint-Louis que nous écoutons. tëdd ba xaaja guddi dégg riiru géej ndox mi ni muy waxtee fokk miiru kër gi géej climatique moo ñuy gaañ le groupe de rap saint-louisien qui est composé de Baytalé et de Soufianké ambitionne de faire rayonner le hip-hop saint-louisien à travers cette compétition c'est la fin de votre journal de la culture merci de l'avoir suivi